Jubilee! coronavirus bi la waaw kañ lay jóge ci réew mi la moo jara laaj en tout cas président Macky Sall ci la solo yéene kaay waaw nee na bu ñu songaatee day moom corona gi ah duñ ko atal de maar di taal président Macky Sall daal dinay profité nag ci ndaje mi nga xam ne moom lañ doon amal démb day way la yaa mbirum numérique la ca jam ñaajoo démb ci teewaayu Yankhoba jatara ministre ca la Macky Sall kon xamalee sénégalais yëpp ne leen doomu jàngoro jàng fi ba léegi ni la de corona baa ngi fi ba léegi ni la de dañoo war a xeex na ngir doomu jàngoro jooje daal di fii jógee dëgg la président Macky Sall ne parce que na gis ngeen ne doomu jàngoro ji dee bu ñu songaatee duñu ko atal suñu wàllum koom-koom gi lé du ko attal te gis nga corona joojee ah mar day taali mar day taali le quotidien yéene kaa ne dañoo nemmeeku ne mbir mi kat daa commencé yéegaat nag léegi mar day taali waaw waaw moo tax Macky Sall na xelam tey ci ñaareelu vague ba te gis nga nag Macky nee na bu boobaa koom-koom gi du ko attal de critique yéene kaa ne jug leen alerte rouge ndaxte Sénégal day lu tolloo fukki junni ak juróom benn laa lay wax nii ci kaay kaa mi koy waajalaal te la wax ubbil tribune yéene kaay nañu wàllu wàllum pétrole a de la mu mabal daal ci lu jëm nag ci wàllum investissement boo ko xaymaa toll na ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay milliards de dollars la ilaha illallah la joo xam ne maanaam corona gaa ngay rey suñu wàllu koom-koom gi ga ah te jamono jooje le président Macky Sall waaw yokkal Idrissa Seck ñaari milliards yaa ma ne tribune yéene kaay moo ko wax nee na budget conseil économique bi yokk la wax la ilaha illallah léegi milliards deux cent quarante quatre millions deux cent quarante six mille deux cent quatre vingt quatre francs allahu akbar yéeni te moo ni bi fa Aminata Touré nekkee day waaw juróom benn milliards yu tëgas lëf la léegi nag budget Idrissa Seck boobee yegg na ci juróom ñetti milliards yu tëgas lëf maa la wax la démb la ñu ko doon càmbar kon ca assemblée nationale assemblée nationale googe nit ki démb tribune yéene kaay nee na day defate nañ seen manin de xuloo xeex robinet Benno Bokk Yaakaar bi day nee na Cheikh Abdou maa la mën maa la ëpp doole boo fi génnee dama lay ñuus maa day taali maa la wax lii de parce que Cheikh Abdou Bara Dolly day Mame Boye Diao directeur impôt la daal kon song rek waaw les écoles yéene kaay ne moo taxit opposition bi xaw na ñoo rey waa gouvernement Macky Sall bi démb assemblée parce que Mamadou Lamine Diallo Mame Diarra Fam waaw nee na ordonnance leer looloy dëgg de Mansour Sy Djamil nee na wax yu ñaaw yi ba ma juddoo ba léegi ni lé mësuma koo gis Moustapha Guirassy ah nee xanaa xamoo élection maa la ko day nee na ci gudda googee zone rouge bi la nga war a génnee maître Ndeye waaw nee na xanaa ne jar gi nga xam ne moo làqu boobu bi bon la corruption secrète boobu mooy bu bon yéene kaa gi ne en tout cas gi lée waaw Aïda Mbodj nee na na bi leeral na mbir mi leer Aïda Mbodj xamal na Pape Amadou Sarr ne ko ndaw yaa ngi ni lée ñu xañ leen financement jeunes amuñu benn financement la la ko wax waaw ne Pape Amadou Sarr yow laay waxal ndax mbir leer ay da bëggul lëndëm de nay leer saay les si ko yéene kaay ne en tout cas Abdoulaye moom leeral na budget bi moomu leer nañ ah ci boppam la ko doon expliqué ay argument Abdoulaye Daouda Diallo ci vox populi daal xam le na ne bor bi nga xam ne moom la suñu réew mi yor ñun te réew ñoo dund te mën nañ koo fay yàqaluñu dara marché yaa ngi yàqu dé tur bi yéene kaay ne marché ba nga xam xamante ne kon ci kastoor gii ay millions yi millions ñoo dem laa la wax dépôt bee defoon ngooñ ba day ak jur ga ay garage mécanicien ay atelier frigo fala lakk ga jolle ay oto bëree bëri sax ba lakk marché war a moderniser évidence yéene kay ne marché ci leen ba ca Ziguinchor moom la waa AGETI bëgg a moderniser de def ba mbaax waaw ak campus bi université Assane Seck sa Ziguinchor directeur général u AGETI day Alaaji Malick Gueye ma nga ca santé yi de te nag gi tee ñëpp teg seen bë plateforme xifil xool waaw song nañu Kaffrine de Tambacounda ak Kaolack ak Sokone aha bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Ndiaye Bambay mi lé ak Malal Diallo nee nañ président ngi liggéey bu leen neexee en tout cas ngay waaj a day ca présidentiel ba la tee moo yéene nañu présidentiel 2024 yooyu waaw Abdoulaye Wade de ñetti santaane la joxe mobilisation organisation a dellu si waatu Karim Wade mu nekk dellu si bu rëy jël na bee raw na ñëpp parce que nguuru Macky Sall gi moo fi njëkk ak ay élection locale lu tolloo ñetti yoonu yàlla yàllaa wax ñetti yoonu yàllaa ngi nii Macky Sall kon di ak élection yi lii luy ndee baax de la muy jur du baax te classe politique ak société civile bi day nguuru Sénégal geeg àndandoo Macky Sall yi la la wax di ak élection xam ne ne moom la waa APR te day ngir nag seeni nit di dem ci télé ak ci rajo yi di leen waaw Mame Mbaye Niang ko caa woon waaye génn na de génn na ca de Birame Faye moom ma ngi ca biir yéene kaa Idrissa Seck day dekal na Awa Gueye Kébé de aha maa la ko wax en tout cas Macky waa kër Macky mar di Italie waaw te loolee nag bokkul lañ koy doyee ca palais dee mbir ma kay la muy saf mooy wàllum complot mar di Italie yéene kay Pape Diogaye Faye ne maître Oumar Youm day lañ koy tuumaal mooy xaritu Mimi Touré la eh way Samba ay kàcci ay complot yéene kay ne non Cheikh Issa Sall kay mooy xaritu Mimi Touré Cheikh Issa Sall kon moo indi woon Mimi Touré ca Mbour cay affaire termine yéene kay ne maître Malik Sall day xamal na procureur yi démb seen dajama lu bariwul nee na leen am ci ay tojaange ak ay vraiment jarul ay mandat de dépôt ngeen ciy tëj ay nit procureur yi miliñ rek mandat de dépôt mbiluñ mbàcc rek kaso miliñ mbàcc mandat de dépôt mbiluñ kaso <laughs> waaye procureur yi nañ ak luñ ñi yor suñu pétrole kenn waru fi waaw parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal